dox ci diggante ceeb bu xonq <laughs> ab Pape Seras ceeb bu xonq na moom la bopp xonq waaye xale yi lu ne lu ñuy tudd ceeb bu xonq ceeb bu weex bu am roof ak suul ak bëggëj <laughs> waaye xale yi ñoo neex ceeb bu xonq war a war ginnaaw ndaysaan ikiri Seex Mbaba la nekk moom ceeb bu xonq ma ngay laa lekk ndeysaan Pape Seras sak xam sa cosaan la nekk ci ñoom ànd la fu ñoom tas yaakaar ñoom fils de Balla soq ndeysaan ma nga noonu daw nañ jëli ko ceeb bu xonk jëli na ko boobu paat boobu yoon nga ne waaye daanoo gul ndeysaan ceeb bu xonk jàpp na Pape Seras a ngay bañ ceeb bu xonq gi koy jéem a jël ci suuf Pape Seras a ngi dóor bu xonq ceeb bu xonq Pape ceeb bi am na suul déedéet du am suul ceeb bu weex mooy am suul ceeb bu xonq bi jën bi mbaa roof nañ ko <laughs> ay jën bi yaboo la wala ma ci suuf ah Pape dee ngay dóor. Seras moom ceeb amu fa ndaw la fa am. laa ilaaha illallaah ma ngay door ci suuf ma ngay dooraat Pape Seras a ngay door ay waay Pape Seras bul tuur ceeb bi wala déet war na koo tuur wala ceeb bu soog xongo ñu jéem a jël ci suuf ceeb bu xongo ñu jéem a jël ci suuf ceeb bu xongo Pape Seras Pape Seras ceeb bu xonq arbitre bi àtte Ardo kuy dem ah ceeb bu xonq xonq na jaadu na ceeb bu xonq bu demee ba xonq jaadu na ndeysaan arbitre bi siflé woon na ceeb bu xonq ak ñoom ñaar a ngi noonu cey lamb lamb ngi ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ba tay ndaysan Pape Séeréer ékiri saako xam déedéet ékiri xam sa cosaan la nekk ndaysaan ma nga noonu ñoom ñaar adversaire bi dem na ardo ba ñëw daw na jëli ko daw na jëli ko séeréer ñoom ñaar lu nar a xew ceeb dem na ardo ba ñëw ceeb bu xonk pap séeréer action dina amam déet te bu xonk Pape Séeréer Séeréer ñu ndeysaan caxabal na ko lu mu nar gars yi nee nañ ci programme bi ñii dañoo juum barki démb daa am lu ma dalal ci làmb ji Adama di reporté combat ñu ñu kii Pape Séeréer te ñu ngi def ci programme bi Pape lan Séeréer Adama foofu ma wax Adama dimbali ma internet yi Adama ndeysaan kon action ba ma ngay continuer ba tey la ma waxoon kon looloo am Pape Seras ak ceeb bu xonq ndeysaan ñu nga noonu ndeysaan programme bi ñu bind Pape doom deewoo Mbagnick Kaïré boo ko gisee ni mu duggisee ci stade bi nga xam ne lu ci bàyyi ndeysaan la ca doom a nga ca bàyyi la ca bàyyi nga ca doom wolof daan wala sama papa Doudou Yaye Kassé da daan wax naan yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana doom ju baaxam noppal baayam waaye baay ju baaxam noppal doomam ndeysaan boo baaxee lu ne mën nga koo am ndeysaan ñu noonu arbitre bi siflé woon na ceeb bu xonq ceeb bu xonq Pape Seras ñoom ngi noonu pa ceeb bu xonq sangoor bi wala ñu xonq li ci ngemb li ma ngay ceeb bu xonq daw na jëli ko laay laay la laa nañ Pape Seras fàqat na ko ceeb bu xonq Pape Seras tegal wala déet waaw waaw waaw waaw katapi na waay jéem waay ceeb eh, bi dañ koo roof am na taxaar ceeb bi saf na saf ceeb eh, bu xoox daan na waay ceeb eh, ceeb Matam Mbaye ceeb bu jot ba ngay ñëw benn mbay koor gaa ngay ñëw oh dinañ la namm dinañ la namm dinañ la namm koor gi ñëw na dinañ la namm. bëre bi nga bëre. dër man damaa mën a bëre. ñi ma àndal ni ñoom Ndiakhoum ak ñoom Baye Bala xam nañu ma école Samba Bala yaroo man foofu ma fay dem bañ ma fay yóbbu dama doon téye gars yi seen yi di jàng bëre di tarbiya xool nga ni ma toll ñoom ñoo ma ne da ngaa war a bëre yow yow da ngaa war a bëre ñoom ñoo ma utal combat ñoo def lépp ni ma da ngaa war a bëre yaa ngi dégg barke alxuraan ceebu xonq sama kii nii ku bëgg ñu yaatal ci taarix la maanaam jékkiwuma jékki rek ne man ceebu xonq laa tudd daa am fu ma jaar ak moom parce que sa thème koor gi dinañ la nam koor